affaire bu kees eh, jël soo te blende ko koñ ba koñ ara waara reer ñëw taxaw ci diggu tali bi ñu ma der saa lay werdu si wuy yaay mo da nga wàcce der ba doo wàcce der bu kees ah eh, doo wàcce lii def nii looy def nii. kon yow yaa yor oto bi wala yoroo oto bi. ban oto ngay xool. yaa yow yaa yor oto bi. loo ci am. xool gis ñëpp yéeg a mairie ma doon xool ba xam quoi te taxaw dem dama ko doo yolomal fii pour ma mën a. lu tax ma koy yolomal. <laughs> pour ma mën a expliquer cas bi cas bi. xam nga danga ma romb quoi ci premier virage bi léegi nga dem ba deuxième virage ba bëgg a laqati ko troisième. léegi nga romb ma quoi ma seen ñu blindé oto pour man ministre wala député ñoo ko yor quoi léegi après ma seen benn taxi taxi bi topp la quoi léegi bu la taxi bi toppee après. man da lay topp progressé la quoi léegi moo tax. mais oto bi bële na la mënoo ñëw rek te da ngay gaañ sa bopp. dama ko tegoon oto ministre wala député ak yooyu tax ba yooyu gars leen di topp ba ci plage topp ba ci ruq-ruqaat yi xam nga di leen agressé quoi. dina ko jël téléphone comme comme agressé ah, yow sa oto la. sama oto la waaw. sa nga taayoo ko de dara de ale balla da taayoo de gaa yi yow la di wax de gaa yi hmm. boo gee ci rek balla balla ale balla jaajëf tey boo gaañee sa bopp la yor da ngay damm de sa loxo yi ba yaakaar na yi kii ku judd da ngay daway kii naw yo bal sa ba dee ko pour Sénégal bañ ko dégg sa gaan jël bi nga sa copain jëloo bu dara war de. noo ko gisee. jël bu technique la jël bu tegu ci taayaw. ale bala ale yow la gars yi wax de. am na ñu des ale mbër am na man xam naa loolu. yow xam naa ne am na ñu des te jël boobu xolam yor nga ci diis yoo ci war a daan te kenn rek nga ci daanagum. naa wi ma. taay damay bëgg a dem Casamance. dama war a yóbbu ko benn mission te dama war a monter quoi te xam nga bu ma monter bopp. guddi gi damay taxaw 24 heures sur 24 dama koy taxaw quoi te léegi xam nga 34 dimanche 32 lundi 18 mardi 27 mercredi 49 jeudi 62 vendredi xoolal yoo xam ne bii nag damay war di taxaw di garder affaire yi quoi dama am droit xool droite dama am droit xool te xoolal ci kanam rek laay fixé war faa xool te loolu foog nga laaj condition doy quoi soxla naa ay flexion yu baax ak ay poj yu baax quoi. wax dara fii amul dara. léegi man nan laa def ba tànk bi am dara quoi ba ma mën di taxaw bu baax. ay pression di yëg diin. loolaa tax ma bëggoon quoi doon la wër pour ndax gis naa wër bi ngay wër. mooy sa roulé bi sa wëndeelu boobu. wëndeelu boobu du caaxaan. te wër boobu ku sa tànk baaxul doo ko def dee. mais père loolu du caaxaan. da nga dafa yomb. mais boobu nu may def ba nga jàngal ma ko. est-ce que mën nga ko. mais bien man kay moom laa bëgg a mën ko waaw may ma ko may ma wër bi. père est na ci yow. ah mais garaawul. ok vas-y. amul problème. pare nga. waaw pare daa. Gin ki dégg gin gin ki dégg gin teeg gin gin ki dégg gin dégg gin dégg gin dégg tere te teeg gin ki teg tegin gin gin te te te te te te te gin caat gin caat te te gin gin teegin tegin gin teg te teg te teg te teg ko yow père lu ngi def nii miir baal la miir. waaw taxawal léegi baal la damay miir jàpp ci damay miir de. waaw jàpp naa ci taxawal. xoolal bi mi ngi ci bat. bi mu ngi ci yow. Ah, lan lan mooy sa problème léegi. ah lan mooy sa problème léegi. damaa gisatul dara. gisatoo. dara dara gisatuma dara kay. waaw mais taxawal yi père lan la. damay damay damay yor gi mooy tàng. waaw ma xool de. mais lan moo la waral ni miir bi. ni ni ma roulé est la est-ce que doon beneen bi laa war a roulé. mais la noonu la sax. mais lu tax mu yow da miir booy roulé. non non taxawal taxawal. waaw. Ah. sifflé léegi. Ah, ciw diwtiir wala. ciw bu kii rek bu am diwtiir bu tuuti. mais moo tax moo ci génne. ah yow soo saga diwtiir rek nga bëgg. waaw waaw. ciw diwtiir ciw. ciw ciw ciw. cu bëgg. cu bëgg waaw cu bëgg ak cu jën yooyu. Eh. yow ku bëgg lekk nga yow Balla. mais dañ la dañ la waaw. ok jaajëf waay Balla de. Eh. rek rek sa lay taay xool fi nga ko téye fi nga ko ŋëpp téye ko yaa ngi ci taa dee. ndewoon ah. la yaa ngi ci taa te xoolal attention de tu vas yaa ngi ci taa da nga dem mën a brigadier permo la yaa ngi ci taa. <laughs> Balla. allez. Dracula. Ciao, jaajëf Baye. ok ok jaajëf Baye. ok jaajëf Baye. ok allez Balla bonne continuation. ok merci bonne continuation. circulez mbër circulez circulez. il faut rouler allez. rouler. allez. ah. waaw waaw waaw champion bu mag bi